docteur ñu abordé benen sujet moy euh, ñoo ci approche tabaski tabaski wax di nga wax xar tamit di nga wax li nga accompagner xar bi euh, ko lool sa sa sa ak euh, pomme de terre bi ak soble bi est-ce que ban assurance ngay sa population sénégalaise par rapport ak approvisionnement si veille de fête bi nga en tout cas ah tukulóor moo ko laaj. loolu moom séeréer. jaaxal na ci biir sant ba. kon xam ne moom <laughs> lu am solo xam nga ci légumes yi. ñuy gën a mm-hmm. soxla ci wàllu. feet yu mel ni tabaski. wala mm-hmm. tey. Mm-hmm. wala gàmmu yeeg de yaa def na sutura. ak gis-gis bu leer. bu président Macky Sall. Mm-hmm. ak jàppaleem. Mm-hmm. tey ñaar yooyu boo ci jël. Mm-hmm. liñ ci soxla ci réew mi. li ñuy produit li ñuy ñor la ci loolu. ëpp na suñu soxla. tey jii waaw. kon ça veut dire que marché bi moom ça sera bien approvisionné. tout à fait pour jox la ci preuve. tey juróom-ñetti weer ci fukk ak ñaar. bu soble. soble Sénégal la dundee. te gel bi. ñu ngi ko defoon côté Hmm. kon février bo ci tegee juróom-ñetti weer. Hmm. kon xam nga ni génn guñu. Hmm. fu soble wara a kon soble am nga jël pomme de terre. juróom-ñeenti weer ci fukk ak ñaar. pomme de terre bu Sénégal la ñuy bo daxé di diggante février ak légui kon génn bo ci tegee juróom ñeent ñeenti weer. kon xam nga déssé dese nga ñaar ba ñetti weer yo xamné pomme de terre dina amaat. ci pomme de terre bu Sénégal lay doon. kon li ma bëgg a leeral foofu. Mhm. mooy. Mhm. pomme de am na soble am na te lépp fii la ñoree. du am rupture am ragaloo rupture. comme loolu nag am na ci jàppale président de la République. Mhm. pour production ren bi en tout cas. li ci président ëpp dix milliards waaye yeesu ko. ci jàppale ñooñu ko ñorle. mooy béykat yi. diggante engrais. jiwu pomme de terre. ndimbal li. ci wàllu dund li mu ci jënd. Mhm. matériel agricole. Mhm. boo ci yokkee matériel agricole bi sax daanaka yaa ngi war a yegg ci ay douze ba quinze milliards. d'accord parce que matériel agricole bi ma la wax ne. Mhm. maye na ko bu yàggul. valeur bi presque cinq milliards la te ci ca ëpp. matériel horticole la kon xam nga mënoo jël lu diggante diggante douze ba quinze milliards. foo ko jëlee laa biir la. xol bu rafet moo la ko def loo am yërmande ci béykat yi. ak gëm ne Sénégal yi ci ëpp ñoom li ci wàllu mbéy la ñuy yëngu. Mhm. wala ci lii meññee ci mbéy nga dooleel mbéy loolu tax nga def ko. je mhm. parle du président de mhm. moom moo ko def mais kan moo tax mu def ko mooy sénégalais yëpp. mooy. ki koy béy. gis ci boppam. jëriñu jaay engrais jiw ak yu nu may. gis ci boppam ki jaay matériel d'irrigation. gis ci boppam ñor la transporteur bi. Mm-hmm. gis ci boppam commerçant de gros bi grossiste bi. Mm-hmm. gis ci boppam. Mm-hmm. kiy def détail. gis ci boppam soxna si dëkk ak yow castor wala derk lay waxin la. nga xam ne taable am lay def ca koñ ba. dem jënd ay légumes di jaay. bu ci gisoon dina xam nga du ko def. kon ko xam ko même kooku ma ngay jëriñ. Daouda Ba bi nga xam ni. natt rek moo ko boole ci soble. ak pomme de terre mais mënoon mu gis ci boppam. d'accord nan la ci gisee boppam mooy njëg li. nekk njëg loo nga xam ne. dina dëppoo. poosam ndax nag damay fàttali ni. bu doon mbiri président dawalal na dawalal na ko dara. si subvention yooyu président mhm. mais pour pour Daouda ak keneen ak keneen moo tax mu def ko. Mhm. foofu laay. man kon kon dañ ko war a yombal nga bëgg a wax. Mhm. dañ ko war a yombal waxuma dafa war a yomb. dañ ko war a yombal ak dañ ko war a wanteer nag. Mhm. bokkut bokkut. waaye ku nekk ñun. Mhm. xam nga lu ñu maanaam la preuve. fixé nañ prix de terre mu ngi nekk fii ci euh, Diamniadio. parce que am na fi am froid bu fukki junniy tonnes. yoo nga xam ne ñi euh, indi euh, wala kii bi. agro business bi dese pomme de terre. am na fi chambre froide maanaam bërëb dencukaay bu fukki junniy tonne fii ci Diamniadio boo fee dee foofu nga jëndee hmm. trois cent vingt nga ko jëndee maximum trois cent vingt cinq hmm. mais loolu xam nga lu ñu xam la ARM hmm. topp ko juboo ci ak moom ñu fixe ko mais kon léegi mu mu desee nga jëlee ko fa yóbbu ko yaa xam foo ko yóbbu ci biir Sénégal marge yi ci wàllu transport yi xam nañu ko nga yokk ci transport boo ci paree nga yokk ci li nga xam ne mooy sa bénéfice dafa war a am limite. Mm-hmm. foofu nag laay ñëw. Mm-hmm. maanaam warut a xaabaabal. kon ñooñu war nañ cee gis seen bopp ñoom commerçant yi. Mm-hmm. man ànd naa ci. mais li ma àndul. mooy ñuy lor. askan wi askan wi. ci xaabaabal ci yokk bañ cay yokk ndax rek. tabaski la te tabaski nekk waxtu moo xam ne waxtu yërmande la. waxtu jàppalante la war a doon. waxtu jaamu yàlla la. absolument war nga ci am nag loolu mais waruloo ci indi. lor. comme ni diine waxee ne. laa daraara wala diraara. bul lo lore. waaye bul nangu si kenn lor la. kon ñun. ñu ngi waxee ci côté consommateur yi. kon du ñu nangu. ku lor consommateur yi. ñu bëgg nag service yi dañ ci. taxaw bu baax. man gouvernement. le ministère du commerce. ñu yore wàllum jënd ak jaay tout ARM. directeur commerce intérieur. ñoom ñëpp d'ailleurs. mosuñ cee ñàkk taxaw c'est l'occasion ñu félicité leen bu baax ñoom Amadou Abdou Sy ak Ousmane mhm. Mhm. Mbaye vraiment ñu ngi rafetlu mhm. seen liggéey surtout que ñu ngi koy def en équipe ak ñun waa agriculture en tout cas ñu ngi liggéey ak ñoom liggéey bu bu rafet ñu ñu bëgg nag ñi kon fexe ba prix yooyu war a xaabaabal comme du sama liggéey nag mënuma sori ci côté prix yi mais wax naa daal prix yi ñu fixé te ministère du commerce am na marge yu mu autorisé. Mhm. kon amna niveau yu prix yi warut a passé. Mhm. dale ko fi gëna djégé jege. Mhm. fi koy produire ba fi gëna a. sore ñu bëgg prix yooyu. ñu respecté ko. d'accord japp na ni diggante trois euh, maximum. dem ba côté 400 francs. te vraiment day fekk mu. bari ba bari lool.

moo tax mu wax li mu wax wax ne. Mhm. Euh, loolu mën naa am ba du xaababal du ci am. Mhm. ba ku nekk euh, gis ci bopp kon ñu ngi dalal xel yi ci ni. Mhm. ñaari légumes yooyu. ak yeneen légumes sax mais comme ñaar yooyu ñoo ci gën a am solo ci wàllu tabaski bi. dina am. te bu ñëpp defee ñu war def. wàccoog seen taxawaay prix bi du xaababal kon sénégalais yëpp nañ ko jot di ñaan bien sûr <laughs> jégal ma. d'accord yàlla may yegg ci jàmm. Euh, passé. Trebuie să chideam? Dacă. Mie, dacă.